yaay ñu ngi lay siyaar. waaw maa ngi lay dolli siyaar. waaw ñu fekk la fii si lakk-lakk bi nii si ay deux heures du matin quelque. waaw. place bi sama place goro la. àllax man maa ko may jabar man damaa tuddoon sax dañ ma woon ni ma palaasam am mi ngi jàpp léegi nag si laa ko woo ni ko àll foo mu ni ma maa ngi sama kër ma ne ko ah sa place tam mi ngi jàpp te ngaa daw ñëw mu ñëw waaye bi ñu ñëwee avant sàpp du ñëw fekk na ba place bi lépp lakk na ba jeex lépp lakk na ba jeex génnewul dara lépp jeex na dëgg yàlla mu doon lu metti nag doon lu ñu jaaxal nag ndax barki de mooy njaay la fi benn place lakk fii si marché bi tey tamit place lakk ñun nag jaaxle nañ te xamuñu lii kon moo koy def. waaw ñu ah. gis sapeur ñëw nañu en temps réel avant ñuy ñëw fekk na bagage yëpp lakk ba jeex foto yi jàmbur yi ñu defaroon yëpp lakk na ba jeex waaw waaw waaye nag bi ñëwee fay nañ ko waaye nag fekk na lépp jeex dara génnewul dara waaw loolu la yàlla dogal. li yalla dogal ab jam da koy nangou rek xeyna na dafa gën. loy loy loy loy loy ñaan wala loy loy loy ah, xana ñaanal ko li li fi li mu ñàkk yal na ko remplacer leneen ci bark yonent bi ndax borom bax la deug yalla ndax du gis kenn ko am nakar kon mom waru am ben nakar waaye nag lii moo gën lii dafa gën rek. wa di ni ni mo bokal marché bi aussi di bokk ak ñëpp. sëñ ba ngay ba euh, ngay nan nga yegge place bi dafa lakk. waaw maanaam lii du lu bees lim ñuy dal mi ngi bëgg a bëri ndax mun naa ni daaw rek heure bi daaw rek suñu frère fii galas fàllu nii la ko defee nii la ko suñu borom dogalee si moom dafa lakk ba jeex dara génnul mu yàqule fi loo xam si kenn mënu ko xam bu yàggul dara suñu grand bi fii place aussi sëy noonu la demee ñu taal ko barki démb ñu taal suñu frère bi nekk fii quoi Amadou xam nga doy na waar daal li koy tàllaal xam naa ni métti na quoi. lu doy waar waaw yaay borom place bi. Hmm. lan nag lan moo fi nekk matériel yoo xam ne waaw bu am valeur yoo xam ne mu ngi fi te affaire moom métti na lool. waaw fii moom li fi lakk li fi lakk tey moo wax dëgg fa yàlla mënuñu ko xew mais ñi fi yàqule daal xam naa ni seen i bagage bëri na hmm. waaw li fi yàq seen fauteuil bëri na barki Dembo Ndiaye suma frère bi gën a fii ak ay bagage am ñëw bokk si nekk fi indi fay salon mais dara génnul Mm, te xam naa ni ak ni ni lan lan moo fi lan lan moo fi moo moo moo fi nekkoon. waaw li fi nekkoon ay salon la ak ay matériel éponge ak ay matériel tissu ay fauteuil yoo dañ ko war a réparer ak yoo xam dañu ko dugaloon ay liggéey quoi ñu liggéey livre ko dese liggéey war ko war ko liggéeyaat pour jaay ko dèjà loolu fi bari waaw yéen ban ban ban ban quantité ban comme suñ xaw xawle lépp ñaan si montant ñaanta la. ah non loolu moom du yomb nii. dëgg fa sant yàlla quoi. waaw machine yi aussi lépp yàqu na mais sant yàlla ko looy looy ñaan looy ñaan. Ah, <laughs> waaw ñun ñu ngi delloo lépp si loxo yàlla rek xam ñun moom ay taalibe Serigne Touba lañ waaw ñun moom dañuy jàpp lu jóge si loxo rek la ca des ko ëpp ko waaw ñun moom côté boobu ay jullit lañ si quoi nañu nangu nañ dogal bi voilà. waaw di masaw rek di wax tamit nañ ñu jàppale ci marché bi quoi parce que lii moom mu ngi bëgg a ëpp quoi te fii ñun dañ fiy daanee doole yor ay njaboot. xam nga ay victimes yeneen ñu ngi fi quoi ñoo xam si ëllëgat si biir li dal ñii mun na dal ñeneen te su boobaa itam day xalaat métti rek te ñëpp yamuñu quoi donc kon nañu nañu jàppale bu baax a baax a baax ci côté boobu wàllu sécurité nañu jàppale daal ci wàllu sécurité baax jàmm gën si marché bi seen côté bi lu muy lakk bari na trop. waaw non maanaam marché yi lakk sax comme marché yëpp rek mais maanaam état moo si war a jàpp quoi di xool marché bañ a xeet parce que ñun dañuy fay patente dañuy fay dañuy fay. ñu war a jàppale rek ci sécurité quoi parce que ñun ñu kenn suñu xëyee rek fii lañu am bu ñu xëyee fii la ñuy ñëw bon lu ñu am yóbbu suñu njaboot quoi donc côté boobu ay nit yu mel noonu boo leen amee yaa leen di aaral li ñuy bàyyi quoi ndax bu guddee yow yaay dese voilà. ñu fàttali ko tur bi. ah àll gay la rek marché jàmm benn. waaw oto say oto la wala. waaw oto bi de ko hmm. waaw. te ci garage bi laay liggéey tamit. waaw lakk-lakk bi lu ko waral taxawal. lakk-lakk bi dañ maa woo téléphone quoi. Hmm. ba léegi xamagoo ne lu ko waral. Hmm. ñoo woo téléphone yi ñu ngi lakk rek. waaw ñu ñu gis ni lii dafa bëri fii lool lool ci côté bii nii côté garage bi nii fii. waaw est-ce que loolu du problème mu ci kaw. Hmm. ci côté la am kii. dëgg la dëgg la dëgg la waaw. te ba métier nga am nii ak oto yi nii nu ñu yàqoo nii ak lépp. lii ah, de kenn mënu ko métier lu parce que lu yàlla dogal kenn mënu ci dara. lu yàlla dogal kenn mënu ci dara. waaw sapeur yi ñëw nañu en temps réel ou a sapeur yi ay jàmbaar rek. sapeur ak ay jàmbaar rek. parce que ñoom teel nañoo ñëw def intervention. Hmm. waaw woo ñu ngi suñu lal. waa te ñoom ci lañ rek waa ñu gis sa mbokk bi euh, tapissier bi mu yàqule macha allah affaire yi ah, lakk ba jeex. waaw boobu tamit métti la na trop. àll métti la na trop. waaw. métti la na trop mais sant yàlla parce que lii ñoo ko mën a am quoi. dëgg la dëgg la ban ban ban ban ban looy lancé autorité bi. lu may lancé mooy euh, suñu oto yi nekk fii. dëgg la ku ci defarul sa oto la yóbbul sa oto sa buntu kër gaaral la ko ndax sapeurs di am yoon. parce que on sait jamais wóorul. kon sapeurs yi kon fii amuñu yoon tey kon bu ñuy ñëw. waaw parce que fii dafa xat trop. dëgg la dëgg la. waaw fii xat na trop moom. waaw ñu gis lakk-lakk bi daa mel ni métti na lool ba léegi ba léegi mënugul fay. waaw loolu moom liggéeyu sapeurs la sapeurs yaa ngi ci biir yoon. dëgg la dëgg la ok merci jërëjëf. ok waaw ñoo ngi jamu ci jàmm gën si Kambaaw tey fii jàmm gën ci Awante Saw ñu gis fi lakk boo xam ne lakku métti bo xam fi fii xaw ñu nag lu ko waral nag waaye ñoo ngi nii sapeur pompier yaa ngi nii ñëw di waajal lakk bi di ko wàcc di ko wàccee nii sapeur baa ngi nii ñoo ngi nii ñëw nañ nii waaw ñoo ngi xaar si karam tuuti ñu dem xool lak lakk bi lan moo ko waral ak li tax waaw mu lakk waaw ñoo ngi nii ñoo ngi si jàmm gën si Kambaaw ni waaw ñoo ngi nii si garage bi waaw si garage jamu gën bi waaw dend ak uh, mairie mairie Tivaouane Diacksao bi waaw ñoo ngi nii sapeur yaa ngi nii waaw sapeur yaa ngi nii def seen liggéey waaw ñoo ngi nii def seen liggéey sapeur yaa ngi nii waaw ñoo ngi nii di def seen liggéey nii def seen liggéey nii waaw waaw waaw ñoo ngi nii waaw dégg naa lakk bi waaj nañ lakk bi waaw lakk bi moom daa mel ni d'accord tey lii yëpp ay dégâts la. waaw dégâts yaa ngi nii pour l'instant nag xamaguñ lan la lu ko lakk pour l'instant waaw xamaguñ lu ko lakk waaw pour l'instant. oto nii oto lakk na ba jeex fii garage la garage plombier la fii plombier ñoo xawoon jege fii waaw lakk-lakk yaa ngi nii li yëpp li yëpp li yëpp ay dégâts la Euh, li yëpp lii yëpp ay dégâts la waaw oto magasin yi ñoo lakk fii so magasin yi ñoo lakk nii yaa beaucoup de dégâts dégâts yi bëri na trop waaw fii la si euh, Diamaguène euh, Diacksao waaw fii la garage Diamaguène Diacksao bi waaw si ginnaaw bi waaw moo nekk nii li yëpp ay dégâts la so oto yi oto yi yàqu na oto yaa nii yëpp ay dégâts la dégâts yëpp a ngi nii waaw waaw la kon di sotuma la jël nga wax ah waaw sëñ bi nga sànni si rek